abonné leen ci yu wér te wóor aju ci réew njëkk na ñëw ci benn débat télévisé duma ko fàtte mukk. Ah. je pense que ko posé ma xam am naa en am na ko posé benn question mu ni nekkuma candidat bii di ñëw élection bii di ñëw bu ma ko gañee dootuma nekk candidat ñëpp leer. pare yëf yi jeex mu taxaw daan ni su ma taxawee fii ni du ma nekk candidat yëf yi day jaxasoo dootu mën a liggéey. donc du ma wax noon defal ndànk. non c'est important mais c'est un donc du wax tout dépend. c'est un peu léger Omar mi ngi loolu mi ngi def lu muy départ ci li nga bëgg. bu fekkee ni. c'est un da nga bëgg a ouvrir léegi une guerre de succession. ci sa biir non defal ndànk ci sa biir régime la meilleure façon mooy nga ni nekkuma candidat. mais tant que doute bi mi ngi am na xaar rek. xaar eh, Omar li may joxe ni man information laay joxe. parce que man du ma waxantu. mais comme yow. comme information ngay joxe. te ne nga président du nekk candidat. Ah non waxuma non dama ni. waaw non déglul ah, ci télé la ñuy waxee dama ni. Mhm. on est le mercredi 14 juin. il est 23h26. ba fi ñu toll nii. man gisuma dégguma waxuñu ma. taqalewu ma lu tax ma war a jàpp ni Macky Sall dafay nekk candidat te jàpp naa ni non te jàpp naa ni moment bi ñuy wax ni bu fekkoon ni Macky Sall dafa décider nekk candidat moment bi ñuy wax ni man dama koy xam ba moment bi ma wax ni xaw ma ko maintenant nag liy ñëw suba ginnaaw suba xaw ma ko mais ba fi ñu toll nii képp ku taxaw ni Macky Sall dafay écarter tel candidat parce que bëggul jàkkaarloog moom dama la koy wax kan moo ko ne Macky Sall day nekk candidat. léegi sama question par rapport ak ak ak ak reportage yi nga xam ne. gis nañu waaw waaw waaw voilà justement donc li gën a tragique. li gën a metti li gën a soxor ci li xew mooy loolu. mooy image yu Sénégal bi ci yàqu. parce que xam nga image yu Sénégal. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa yu wér te wóor aju ci